syndical la journal bi mooy wax nee na Ousmane Sonko nit la koo xamante ni tamit li tax mu gën a ràññee ko bokk na ci maanaam li nga xam ne moo ngi koy dénoncé di ñaawlu anam bi nga xam moom la ñu yore réew mi waaye tamit di suli ay mbóot yoo xam yu day yu jéggi day yu jéggi dayo la jamono ji moom Ousmane Sonko ma ngi ci ñaari dossier yoo xam la ñu ko siqa benn bi digganteem la ak Adji Sarr ak fan lay mujj ëllëg beneen bi digganteem moo ko ci mën a fekk ak avenir politique a xam ne ay magu Pastef lañu ñoom sage yi ñoom nag jamono ji nee nañu takku nañu ba dëgër ngir nag daal di défendre Ousmane Sonko ngir nag kenn du ko fi jëm ci wàllum politique maanaam ñoom du ñu nangu ñu daal di koy liquider yéen i kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu dossier Ousmane Sonko Adji Sarr ak Ndèye Khady Ndiaye ginnaaw bi ko doyen de juge daal di jële yóbbu ko chambre criminelle avocat yi Ousmane Sonko dañoo dem kalaame ji ca chambre d'accusation waaye nag chambre d'accusation boobu juróom-ñeenti fan ci weeru février ci la yëy yàbbi maanaam bi di yëy yàbbi ci Ousmane ko dossier bi nga xam ne yóbbu nañu ko chambre criminelle ndax ay avocat ma dañoo defoon appel yéen a kaay gii di lii ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Wade moom nag jamono ji ma ngi ñi nga xam ne ñooy waa PDS ci lu jëm ci wàllum njaayum carte mi Abdoulaye Wade sax jënd na ci carte yi yéen a kaay gii di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum mbay mi ñu daal di koy moderniser jamono ji Macky Sall ma ngi ci xartànku tuba yama ndax nag lu jëm ci wàllum matériel agricole bi Macky Sall génne na lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñett ci milliards ngir nag daal di ko ci dugal maanaam 83 milliards la Macky Sall jël dugal ko ci modernisation agriculture bi ndax nee na dafa bëgg Sénégal autosuffisance alimentaire am fee waaye nag acteurs yi nga xam ne ay petits producteurs lañu maanaam béykat yu ndaw yi ñoom nag nee nañu matériel agricole bi nga xam ne nguurug Sénégal moo ngi koy faral di jënd maanaam ñoom duñu si jot te nag ñoom dañoo bëgg maanaam ñu boole leen si ndax dañu koy faral di jox ñoo xam ne la yàlla xam doy na yéen i kayi gii di 24 heures ñu xëy fekk fa maam Cheikh Capitaine waaye nag dañoo mer bu wax nañu ci lu jëm ci mbiri Ami Njaay mi nga xam ne nee nañu dafa saaga sunub sëriñ ñoom nag daan nañu dànkaafoo nee nañu bu yoon deful liggéeyam ñoom danañu daal di fajal seen bopp ndax nag nee nañu taalibe yépp jamono ji pare nañu ngir nag daal di tayli seen bakkana yéen i kaay gi di leefoo collectif suñuy milliards du rees ni ki démb janoon nañu ak tas ko do xabaar yi ñoom nag nee nañu danañu déposer ab plainte populaire te nag li ñuy sàkk jamono ji mooy rapport Cour des comptes bi nga xam ne fësal nay détournement ak surfacturation ci xaalisu covid 19 bi ñu daal di koy leeral yéen i kaay gi de ñu xëy fekk fa bugaan gi dane moom nag nee na Macky Sall dafa war a am élégance ba pare ànd ak dal te bàyyi cëpp-cëpp yi nga xam ne jamono ji moom la nekkee loolee mbay xëy jël kàddu gi nee na Macky Sall wurut a nekk ci ay sommet international di jéem a attaqué opposition bi loolee kenn du ko def yéen kaay gi di bés bi xëy ci lu jëm ci wàllum transport bi ak lëj-lëj ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la lambo la ak njaga njaay yi nga xam ne risque yi bëri na góor xuma nee na 90 pour cent si njaga njaay yi amuñu autorisation yéen kaay gi di Le Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu ndakaaru njaay jël jóp jamono ji saret yi bëri na fi loola demal ci banlieue bu demal Tivaouane Peulh demal Lac Rose demal Kër demal Kër Mbay Faala saret yaa nga fa mel ni tuleeg male su journal bi nee na am na ci gox yoo xam ne ci ndakaaru charrette yi ñooy def transport ba bëri na ay gox yoo xam ne ci ndakaaru lu jëm ci wàllum yàpp ay marchandise charrette yi ñoo koy def rawatina lu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy ay ciment ak ay fer seen ñooma waaye tamit bëri na yoo xam ne charrette yi ñooy roñ mbalit yi yéen a kaay gi di réew mi ko di jenqëy séq waxtaan ak waykat bii di Chérif wax na ci musique bi nga xam ne dugg na ci nee na na ci li ko dugal daan nay wax li ko dugal ci lu jëm ci wàllu musique waaye tamit bëri na may na ko ci lu jëm ci wàllu mbëggeel andi na ci ay leeral ak projet yi nga xam ne jamono ji ma ngi en cours yéen kaay gi délibération xëy ci imam Thierno Tidiane Tall mi nga xam ne moo faatu fan yi ñu génn te mu nekkoon imam bu Grand Yoff certificat de mort bi wul benn yoon ne dañu ko teg fitna ba mu faatu waaye tamit certificat médical bi wanewul ne dara manqué na ci yaramam ci corps bi dara man manqué wu ci waaye tamit gis nañ ne maanaam la ñi nga xam ne tamit ñooy police nee nañu imam Thierno Tidiane Tall bi mu faatoo fekk nañu ko mu takk ab montram waaye tamit ak kaalaam gis nañu ko tamit akub jaaro waaye tamit ak kurus ci poos bi yéen a kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu imam boobu ginnaaw bi mu ñàkkee bakkanam def nañu autopsie bi démb la ñu ko jébbal boroomam ci sëg yi nekk ci diwaanu Yoff yéen a kaay gi di ñëw ci ñetti xale yi nga xam ne moo andi woon am riir ci dëkk bi xale yi nga xam ne Medina la ñu dëkk ñu jekk-jekk gisuñu leen waaye ñu gis leen ñu ànd ak benn gendarme journal bi nee na mbokki xale yooyu ñoo daal di jokkoo ak waa section de seet nañ xale yi gis nañu xale yi teg nañu loxo gendarme boobu nga xam ne njort nañu sax ne àndul ak xelam yéen di sunu làmb